mu gëna tedd gëna a sell sakkan doy walis bépp nuyoo te benn man ta doy walis ko ñu ko ci suñu xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy alaykum wa rahmatullahi wa di del siwaat ci kartanal yàlla fas yéene li ñu sosoo nag yéen seen xadiisu sabaax li ngeen baaxoo am bët bu set rekk ci waxtu wi mu mel ni ñi ngi tey ci annidaul xaamis wa ishruun ñaar fukkeeli woote yàlla ak juróom ci téeréem tey moo nekk suñu bopp darsu يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين بجا في الله دوخي فإن الله كان بما تعملون خبيرا نكتي سورة النساء آية cent cinq muy téeméer ak fanweer ak juróom ci suratu nisaa suñu borom bu tedd bi aaya ji li muy gàtt-gàtt dafa ciy digle ndigle loo xam ne dana jëriñ kuy jullit dana jariñ sax ku dul jullit di ndigle loo xam ne amul benn état ku mën a taxaw ci àdduna bi taxawaay ba jub population ba kontaan dëcc buur ba lu dul dañoo bokk ñoom ñëpp jëfandikoo aaya jile moo xam ñooña ñu gëm lañ moo xam ñooña sax ñu gëmut lañ waaye digle yàlla bile ci aaya jile ku ko wan gannaaw di njiit sa njaboot yëpp jéppi la sa population yëpp wan la gannaaw digle googa mooy lan mooy fexe bay atte nit ñi ci maandu fexe bay atte nit ñi ci tooñ lum ñàkk-ñàkk doole wallahi ba tax muy tooñ bul ko yërëm ci ci ñàkkam googa waaye jëlal daan ya teg ci kawam ki am doole lu mu am am doole ba loola jay ko moo xam doole ji ko dooleel ndomba tànk la moo xam doole ji ko dooleel aw askan la moo xam dooleel ji ko dooleel alal la moo xam dooleel ji ko dooleel xam-xam la ba loola jay ko muy tooñ jëlal daan ya teg ko ci kawam ba mu yëg ne ku ñàkk la su paree nag nga door koo delloo la ma xamoon lii nag amul benn état bu mën a dox lu dul atte ba muy justice ba dafay nekk lu tegu ci yoon kon dañuy wax ne nguur man naa sampu taxaw ci kéeféer waaye nguur du taxaw mukk ci tooñaange kon loolu lu xel la ji nag li ko tax a wàcc ibnu jëriir moo wax mu ne ñaari góor ñoo xuloo kenn ka am am am lool bu doon jamono ji nga ne milliardaire la kenn ka ñàkk ba yorul dara dépense ab tey sax amu ko bi ñu jotee ñoom ñaar ñi kalaamante ñëw ci sayyiduna muhammad pour mu atte leen nag mooy attekat bi gën a jub nu muy attee ci mbindee fi yàlla yi mooy attekat bi gën a maandu ci attekat yi mooy attekat bi gën a xam ni muy attee procès boo ko indil tabarakallah bu ko hatte rek nga bekk mom kenn lañ mos gis mu atté ñaar ñu joté wala mbolo mu joté mbolo ma yëpp jàllar bi ko jox ko loxo yemuñ ci ñom ñoña ñu doon atté joxante loxo dunduna na ba genn àdduna musta atté kenn mu ñaan appel ndax yow miñ atté lo bari bari alal te nekkoo ci digg yaak ko ci xamal sa bop ak ne manati ma neex na ma naqare na ma yëg naa ne lu jub la yow mi ñàkk doole ba tax ngay tooñ foog ne dafa lay yërëm dëgg ga lay ñëw gàcc ci sa kaw su paree tamit yaa koy yaay gën a xamal sa bopp ne dëgg daal lii ñu jox ma ci àtte bi moom laa mérito kon laajal keroog banu Quraysh bi ñu joxee gannaaw bi ñu beesalaatee Kaaba ga ba dara desut lu dul yëkkati hajarul aswad teg ko ci palaasam ba ñeenti famille xuloo famille bu nekk na ñoo koy yëkkatil suñ bopp bu ëllëgee ñu koy tiitaroo ci seen kaw bu ñu dee suñuy doom di ko tiitare ci seeni doom bu ñooña dee suñuy sët di ko tiitaroo ci seeni sët ba pincam yàlla kenn ku ci nekk deretam xeeñ ko ñoom ñëpp ñu bokk d'accord ne ku njëkk a génnee ci buntu bii di baabu salaam lu mu atte ñi gërëm ko yàlla dogal muhammadul amin génnee fa te booba sax yónnee guñ ko fanweeri at ak juróom rek la ba mu ñëwee lu ngeen jotee ñu wax ko ko mu yëkkati làmbaayam nga yëkkati xeer wa teg ko ca nee na ana yéen ñeenti famille ana fan mi famille bi sant e, ñas ñu ne ñu ngi nii mën a jàpp leen bi nga xam ne yéen sant saaxo ñu ne ko ñu ngi nii mën a jàpp koñ bale ana yéen ñi sant tabarakallahu jóob ñu ne ko ñu ngi nii mu ne jàpp leen ca koñ bale mu ne waaw ana yén ñi sant dara ñu ne ko ñu ngi nii mu ne jàpp leen ca koñ bale booba Cissé nag xewagut moo tax tudduma leen ñëpp yëkkati mu ne kanaa yëkkati ngeen ñu ne waaw waaw dem ba mu tolloog pax ma yonent bi yëkkati ko boppam palaasel ko boppam ba ñu paree ñoom ñëpp kenn ku ci nekk jox ko loxo jàllar bi ko joxante loxo ne lii bu jub bi moom la maam Xalifa ne xakamathu qawmu qurayshin fi raf'iha alxajara wa bima yurdil kulla kana qadaaw kon loolu mooy àtte kooku mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëriir mu ne dafa ñaari góor jotee kii ñàkk ba amul lum dundee kii xoomal ba am lu muy dundal ba ñu ñëwee nag yenoon bi gis gisam mi ngi ko jooyal jëmee ko ci ki ñàkk jàpp ne daal moom mii di ku ñàkk moom lañ tooñ ndax dafa jàpp ci xelam ne ku ñàkk ku bari alal naka la ko ku ñàkk di ñemee tooñ moo tax mu gis ne daal kii ñàkk moom lañ tooñ néew gi mu néew tax ci am doole bëgg ku dëggate sa man yonent bi moo ko seetaan ndekki toog ki ñàkk ba tooñ ci am doole jublu ci kalaame ki yonent bi foo ne ko yërëm ngir ñàkkam nga yàlla yonent bi ba mu dogoo ba dara su lu xàtteel ki nga xam ne moo ñàkk dëgg ji yàlla wàcce aaya ja leeral ko li ci nekk moo tax nga dégg mu koy wax ne ko ci laaya ji in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabiu lhawa an taadilu wa in talwu aw tuidu fa inna laha kaana bima taamaluuna xabiran yonent bi nag ci la door a ndeke po kii ñàkk moo tooñ ki am mu jàllar bi ku atteel ki am dëgg dañ ci ñàkk foog na dañ koy yërëm ngir ak ñàkkam nga dëggam ja ndax léeg-léeg nga fekk koo xam ne ku néew doole la néew doole ko yóbboo ko naqar deret ki yàlla dogal mu jëlee ci xol boo xam ne bu tàng lay doon mu dëgg ci nag di tooñ nit ñi rek foo ne dañ koy yërëm fu dem dañ ko war a yërëm ngir ak yërëm yu xotteeku yaa dañ koo war a yërëm ngir ak ñàkk dépense am dañ koo war a yërëm ngir ak fanda ñoom nga déedéet yërmande gi la ñuy sànni fële ba jël dëgg nga jaarale ko sa kaw door la koo delloo xat léegi nag yàlla wàcce aaya ja yonentu bi xatte jëriir ne loolu la solo moo waral moo waral maanaam wàcc ak laaya ji nag boo seetee saar wim ne saar la woo xam ne dafa bëri ay aayaat yu ci nekk yuy digle maandu yuy digle jël mbir mi teg ko ci yoon yaa ngi gis ci biir ayaat yi nekk ci saar wi mi ngi ci doon digle ñi maandu ci alali jirim ñi maandu ci ñuñ war a nekk ak ñoom dañu ñàkk a maandu hat moo tax ci biir la saar wi yaa ngi dégg mu ne wa in xiftum alla tuqsitu fil yataama fankihu ma talaba lakum minan nisaayi gis nga ko timit ci laaya jile ci laayaat yi la nekk ci saar wi ma nga cay digle maanaam ñi maandu bañ a xeñ jigéen xaqam ci yoonu jàpp na jigéen la rek bañ jël xalal ja jox ko góor ñi xeñ ko jigéen ña te ñu fekk ñoom ñaar ñi bokk ko te loolu ngi ci alquran li rijaali nasibu ma tarakal al wal aqrabuuna Wal nisaayi nasibu ma tarakal al wal aqrabuna aaya 8 waaye gis nga même ci saar wi yàlla ngi ciy digal maandu ci xattekat yi ne inna allaha ya'murukum an tu'addul amaanaati ila ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumu bil adli nisaa yi kon saar wi naka jekk dafa jàmm dafa làmboo aaya yuy digle ak maandu tabaarakallaahu jëmee ko ci jaamam yi moom yàlla waaye fekkaan nga ci biir sax ma ngay wax ak àttekat ya inna anzalna ilayka alkitaba bilxaqi li taxkuma bayna annaasi bima araka allahu wala takun lil xaainina qasima yonentu yi nga xam ne moo njiite àttekat yëpp da yàlla wax leen ne ko wàccee nañ ci yow téere bi daal quran wàcceeg dëgg dara taxut ñu wàcceeg lu nga xatte nit ñi ci la yàlla xamal bul farle mukk ku tooñ àtteeg dëgg rek lu taxoon mu wax loolu benn góor gu ñu tuddee tuumatu tuumatu bnu ubayriq bokk ci lansaar bokk ci famille bu ñu tuddee bani xafr jullit la woon dafa sàcc benn mbubam koŋ ci ab dëkkandooram bu ñu tuddee xataadatu bnu nuumaan dam ko sàccee fekk da koo sàccee génnee ko ci benn ben sakop ben sakop sankal sankal suñu wal waroon ko def cere la borom mbubam koŋ ma jël mbubuma denc ko ci xam nga fofu kenn du ko yaakaar dana niroog léeg-léeg nga denc sa denc fo xamne ak sacc lu mi ñor-ñor du ko yaakaar bu ko saccé rek xamna day sacc du nekk ci dëkk ba xamna sacc yo xamne bu ñu sacc wallahi nday sàcca nday sàcc moo leen dimbale moo leen orienté waaye xam nga ne mbubbam koŋ mu ñu dugal ci sànqal foofa du këram foofu du dëkkuwaayam foofu du denc waayam loolu la borom man ci rawale waaye nday sàcc rek moo ko ko tegtal ba mu ñëw sàcc mbubbam koŋ mi am ko sàccee nag tabaarakallaahu sànqal saa ko fee weer sànqal ja topp ko ñu topp tànk yàq sànqal ba mu dugg ci benn kër ak bu ñuy tuddee Sayd ibnu Samin dénk ko ko ah dañ ko ko dénkee nag di topp tànk ya tànk ya tànk ya ba yegg ca foofa fekk ko ci mu ne ah kay man dee ngeen sama loxo mu bam koŋ mi waaye maa ngi waat ne tuumatu moo ko dénk tuumatu tamit nee na jullit la yahood bi mu dénk ko du jullit yowóot bi taxaw te moom a ko dénk Muhammadu muy jullit gëñ na dénkul ko ko mbokkam yëpp di bani xafru jug sotle ko ne moom sàccut ko moom Muhammadu sàcc gi daal ma nga ca kañ ko fekk Muhammadu nag gaaw dem kalaame ci yonantu tuba sallallahu alayhi wa sallam yonantu bi jàpp ne la ndax taxaw na gëñ jàllal bi ko tamit sàcc gi fekkuñ ko ci loxoom topp nañ sànqal sax ba fekk ko fi ñu ko dénkaane te gëj na ne dénku ko waajaa ko sàcc yonent bi ittewoo ngir dagg loxoob yowóot bile yàlla wàccee aaya nag leeralal ko ne ko nag procès bi meewul noonu ñu mii ne jullit la toomatu moo sàcc sàcc gi dem dénk ko ko bokkul a diine ñu ab yowóot ngir taqal ko waaye lépp mooma mbir ma feeñee nag toomatu daw génn ci diine ji murta dem Makka ba mu demee di sàcc bënn miir bënn miir mii ngeen di gis gaa di ko def di sàcc xari jàmbur yeeg bay léegi léeg-léeg miir ba yaatu ñu jaarale fa nag jaarale fa ngooñ ma jaarale fa dugub ja jaarale fa lu kenn xamul machine ya lu fi yàgg la toomatu moo bënnoon miiru Makka waaye ba mu bënnee miir ba rek miir ba daanu ci kaw mu far dee sàcc ak siddiit la bu yëngatoo rek doo koy def doo ko tay kon nag moom mujj na am ñetti ñetti mbugal dal na ci kawam mooy dagg nañ loxoom ba yonent bi xat na ko mu dagg loxoom bi murtad na génn ci diina ji dee na timit ci ak fàcc goo xam ne dafa caa weeru biir ba daanu ci kaw mu dee kon gis nga ko euh, kenn du lislaam ci maandu procès bi indil nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuumatu mooy mbokkam jullitam ba mu jàppee na ci ni mu waxee ci procès bi Mohamed dëgg yàlla leeralal ko ne ko sa waa ji dewul ci dëgg de sàcc gi yépp mooma moo sàccee mbubbam koŋ mi fuñ fuñ yaakaarutoon ak sàcc ndax ku jël jël sa mbubbam koŋ lagal ko ko sàcc ba far dugal ko ci sa saakoom sànqal dëgg sa denc ga nag foofu la denc mën a xem waaye nag ki ko trompé bam sàcc ko mooy ndey sàcc yi nekk ci kër rek ñoo ko xamal ne ko fii la góor gi sàcc denc mbubam ko ngam dana mel ni si si ba sàccoon saako ceeb ba dugal ko ca morgo ba xam nga ne morgo kenn yaakaariwul ba saako ceeb nag loo ca man dara su ko defee nag waaye gis nga yàlla moom buy feeñal mbir yi doo xam fi mu koy jaarale léegi nag mbir maa ngoog jàpp nañ tooxmatu jàpp nañ loxo ba murtat na dem na màkk sàcc na ba mu sàccee rek mbir ba daanu ci kawam dund miir lu fi yàgg la nekk ndeyu sàcc ci dëkk bu waaje demee gàmmu mbaa mu dem màggal mbaa mu dem ziyaara walla mu dem céet wala mu dem ngénte nga ànd ak nday nday sàcc ji ànd ak yow mu ne la nag yaa nga nale xar yaa nga nale machine baa nga nale dund baa nga nale demal jaayi te sédduma yaa bon waa jooja sab dëkkandoor nga weer ko mu hóolu hóon la nga xam léppam mën a dugg ca néegi soxnaam ya mën a dugg ca wana gam wa mën a bokk ak moom bi añ reer mu hóolu la ci léppam di ko yaa jaay ki gën a wóoradi soo ëllëgee nag bu sàcc ga siiwee ñu ne ñu ngi koy seeti nga ni dama lay ni seetle fu ñu wax nag danañ fa jublu nga ne fële ba xam na ci nit ñoo xam ne seen ak mbon billahi bu leen yàlla ruseewu toon yonent bi dañuy xëy rek lakk nga xëy gis ponkal mu yore kurusam di lagar lagar yi yore kaamilam génne ca jàkka jàng jàpp tooy xepp jékki-jékki ji lakk waaye yàllaa ñu rusee yonent bi rek waaye mbooleem xeeti mbon bu sa xel daj ña jiitu woon daan ko def te duñu jullit lu ko xëpp tey ku ne koy def gën koo bon toll nañ jamono joo xam ne ku la gën a neexi alquran bu jàngee nga daanu ngir ak rafetaayu alquran ja waaye bu jëfee rek nga jëgal nga jël paaka bëgg ko rendi ngir mbon nga loolu xam nga musiba mu bon la kon nañ ciy bàyyi bu baax atte baa ngoog lii la yàlla wax yonantu bi moo doon njiitee xattekat yépp ndax mooy xattekat boo xam ne du doyloo avocat am ba mooy jibril waaye du delloohut avocat kaw doomu adama kom mom waya àttekat kat bo ya. ne nak bala ngaa hatte laaje ay avocat te avocat ya na xam fuñ jaar ak ñom ah hatte de du ca mën a ne la dimbale waaye yoonent bi na bo gisee mu dakk hatte ñep avocat bi ma xamoon moy Jibril moy ñew leralal ko procès ba nim exact rek du jumuk lepp lu mu hatte lu jubla taxatte nag lu jar a baxi xel la melaw yàlla la moom kenn dong moo mën a atte ki a atte mooy ki mën a atte procès bi te doo laaj doo laaj ci tooñ doo laaj kiñ tooñ doo laaj niñ ko tooñee ndax yaa xam lépp pekk moo tax mu tudde ba fi alayhi salaahu bi ahkamil xaakimina dalee rek ci mën a tegu mu ko jàngee donte balaa nekkul fa tamit bëgg nañ nga dénkane balaa ne xatte kër yëpp ci leen doxaat ndax du yàlla bu fekkee da nga koo firee ci firim afaxla tafdil ma boo ko gàccalee nag firee ko firim ismu faay ndax yàlla nekkul xattekatu wayaate ñi bale a kay kon xatte moomu di melow yàlla moom kenn dong mu man ko ndax du laaj ku ñuy laaj la bu ko jëlee mbubam mooma abal la ko waroo ko yàq boo ko yàqee rek toroxal nga sa waaye geccal nga yàlla yàlla ne xatti sama mbubb la man soxlawuma avocat man soxlawuma laaj ki kalaame nu procès bi demee soxlawuma ki ñu kalaame tontoom xam naa lépp njëkk muy xew kon man maa leen mën a àtte ndax àtte yëpp ci loxol yàlla lay mujj danañ àtte fii procès ki amoon dëgg ñi xañ ko ki ñàkkoon dëgg ñi jox ko dëggam ñu jox ko dëgg te fekk moomu ko yowmal qiyaam yàlla boole siis ba doon àtte ñam doon àtte ak avocat ya doon layak da ca xaju lépp ca procès ba àtte at leen boo fa da jóge ñu ñaar ñooy appel kon yàlla rek ko yàlla moomu nag di attekat waaye atte ñi te attekat yëpp bu yowmal qiyaama dina leen dagale atte leen korose yi ñu atte woon yëpp dana ko atte at waaye kooku bu jëlee aw meloom xabal la ko yow attekat bii di ba déglu waroo koo yàq waroo gàkkal mbubam yàlla mim la xabal waroo koo tilimal waroo koo waroo koo tilimalee lekk nger waroo koo xottee far waroo ko yàqee singili ci ngay xat ñett yi yëpp bu la doyee ngay xat nit rek man nga ko kañ dëgg ju xamoon suñ la ngeree nga bëgg a jaayee sa àdduna ci àllaaxira ci bu ko jurut man na laa yóbboo nga yàq mbubum yàlla mi te mooy melo wii mu xabal la waaye boo singilee nit ki bëgg koo atte mer gi nga ko mere ko singili mën na laa yóbboo tamit nga xotti mbubam yàlla mii mu xabal la waaye tamit bu fekkee da ngaa far dañu laa xupp ba nga far wala ñu xëpp la ba nga far loola mën na laa yóbboo nga gàttal mbubam yàlla mii mu xabal la muy xat moo tax mbubam yàlla mi ku ko yàlla xabal nga yàq ko wala nga xott ko wala nga gàkkal ko soo lëggee bu ñu la summee rékki la ba nga taxaw ci sa kanam borom gën a xeebu cuuj cuuju ganaar bu tawte billahi da nga réccu loo doon faye danga nga loo doon jengee danga nga loo doon singalee ki nga xam ne yaa ngi koy xatte ba tax tey mu wane njabootam ba leen gannaaw dem tëdd ci kaso jooju xaq nit mënu mënul jaamu yàlla lu ko mën a remplacer ben minitu kasso ko ci dugal da fek woru ci addu imagineel booba bakkaar na mu toll xoolal ñi bok ak mom xamanté ak mom xopanté ak mom moom xar wi nga tabal ci sen xol te mbolem xeeti mooy yalla yi tàbbal naqar ci xolab julit mo ci ëpp doole lolu lu jara baxé xel mo tax yalla bëgg ñi bàyyi xel dossier yi lool xam nga ne aaya bi ñu jàng dafa niroog aayaab démb bi mu waxoon ne yéen bu ngeen di doxate ci kaw suuf fatabayanu yaa ayyuhaa llaziina aamanu izaa darabtum fi sabilillahi fatabayanu bëgg tabayun bala ngaa dugg ci mbir wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta muminan tabtaxuna arada alxayaati dunia niroo naag lii tey ñu jàng lool bëgg nga def tabayun ba mu leer am ta yaqum ci mbir mi bala ngaa jël dossier ba ko xatte nga yëg ne kat mbubam yàlla lañ ma habal duma ko yak duma ko xoti duma ko foye duma ko gàkkal ku yàlla habal melo sof la motax melo wi di melom yonum fi la ko njëkk habal yonum fi yim ko habalon yeb sayyiduna muhammad moy seen kilifa xoolal ko yàlla wax inna anzalna ilayka alkitaba bilxaqi lu tax li taxkuma bayna annaasi bima araka allah ولا تكن للخائنين xasima demal nga seeti ko ci aaya cent cinq ci suratu nisaa yi yow yonent bi man yàlla maa wàccee ci yow alquran mu nekk constitution boo xam ne ci la ñuy sukkandiku pour war a àtte lu tax dama ko def ngir bëgg nga xatte nit ñi xatte gi nag dama bëgg nga lal ko ci maandu bu ko lal mukk teg ci lu dul maandu soo bëggee maandu dëgg doo far soo bëggee maandu dëgg doo singili ki xatte boo bëggee maandu dëgg doo nangu ku la boo boo bëggee maandu dëgg doo ragal li la fi teg ak li la fi teg li fi teg nag teg ak moom ngay ragal walis ki la fi teg teg ak majaas la yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax sahabaam jaarale ko ci moom ne inna laa ya'murukum an tu'addul amaanaati ila ahliha yàlla moo leen di digal ngeen joxe atte yi jëmee ko ci seeni borom di ngeen joxe kóllëre yi jëmee ko ci seen borom te xam nga aay ji yàlla yi wax fakkiñ ko wàccee du julit ab xéeféer la mooy inna laa yaamurukum an tu'addu amaanaati ilaa ahlihaa wa idaa hakamtum waaw Ousmane ibnu abi talha alxujjiyu moo doon bëkk néegu kaaba gi yore caabi ja ji tijjee tëj ku fa dugg moo la tijjil soo paree mu tëj keroog ba yonent bi ñëw ci fatu Makkata ab xéeféer la gëmut yonent bi mu jàllar bi ku tëj kaaba ga jël caabi ja takkaayoo ko ci ndiggam te am ponkal la kom comme mënuñ leen a tere ngeen dugg Makka mënuñ leen a tere ngeen wër kaaba gi da ngeen ko fi wëree da ngeen ko fi duggee waaye du ngeen dugg ci biir kaaba gi te yonent bi bëgg naa dugg ci biir Kaaba gi visité ko mu ne ana ki yore caabi ji Ousmane ne ko mana waaye doo ci jot Seyduna na ak ndaama la woon gu lel rek song ko burungu ko daane ko tekki caabi ja ñëw hubbil yonent bi dugg ba pare génn tëji tëj luwaat Kaaba gi ba mu ko tëj luwaatee ne ah Aliyu jëlal caabi ji nga delloo ko ko fekk na booba ay mbokkam yu bëri ci famille deret ñi ay mbokkam ci jullit taxaw nañ na ko comme comme nangu ko ci moom jox ñu ko xéeféer bu bon bi mu ko delloo caabi yàlla wàcce aaya ne déedéet xaqam la jox leen ko ko inna laa yaamurukum an tu'addul amaanati ilaa ahlihaa Aliou ñoo ne ko téyel sa caabi mu ne ko soxlaatuma ko caabi joo xam ne ba koy nangu dag maa daane sama dënn bi wallahi soxlaatuma ñoo nga caabi mu ne ko yow xéefar bu bon bi bu doon yow ak man rek doo jot ci caabi ji ba péncam yàlla mais yàlla wàccee aayab lëmm ne nañ la ko delloo mu jooy ne man mu bon mi yàlla xam ne ko ma xam na ma tey wàccee ci man aaya bis ni ki tey ashhadu an laa ilaha illallah wa annaka rasulullah xoolal xatte bu jub ni mën a mayee xoolal lim mayee xoolal lim mayee mu dugg ci diina ji yàlla mbaaxam nga yëpp wax yonent bi ne ko ida xattantum bay naas an taxkuma bil adli wallahi su ngeen ne xatte nit ñi da ngeen leen xatte ci maandu nguur man naa sampu ci kéeféer ñàkk gëm yàlla say xatte ci maandu man ca nguur dox waaye nag boo ne gëm naa yàlla te doo xatte woo bu jub dafay damm nguur dafa koy yàq dafa koy uh, salfaañe dafay damm yàq dafay dafay dafay dafay dafay yàq doxalinu nguur wala mag ñu ne nguur mën naa taxaw ci kéeféer waaye du taxaw mukk ci tooñ nguur gu sampuwul ci tooñ yàqu kenn mënu ci dara ñaataa fi nekk ay xéeféer ci àdduna bi day xatte lu jub day xatte lu maandu te réew seen nguur yaa ngay dox ñaataa fi nekk ay jullit te duñu xatte woon lu jub ñu xatte woon lu maandu seen nguur ya doxu mënoo ci dara kon nguur dana sampuwu ci kéeféer waaye du sampuwu mukk ci ñàkk a maandu ne kon premier àttekat yi ci mbindeef yi yàlla jël mbubam mag melom ma leen ko mooy yonantu yi yonantu yooyu ka ca jiitu mooy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jël mbubb ma abal ko suñ maam aadama te la dëggoon atte ñaari doomam da muy xaabil ak haabil bu ñu ndaw sax mu sant leen ne kon jaamu leen yàlla te nangu sa jaamu rek nga xam ne li ñuy xat yaa ko moom xaabil haabil ki jaamoo am ponkalam xar kii ab sàmm la woon moo joxe xarma kii moom ab baykat la woon mu joxe dugub ju ñàkk solo booba nag boo mosaan a joxe sarax wala asaka da nga koy teg bayaal bu safara ñëwee lakk ko wala aw niir ñëw yëkkati ko rek sa sarax soo sa mbaa asaka jooje yàlla nangu na ko mir wa ñëw yëkkati jaamu yàlla xaabil ga bàyyi fa bu haabil ga su ko defee nag léegi ah tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al axari qaala la aqtulan qaala innama min al muttaqin bu doxee ko ko ngir ak xañaan te ku ne xam na ko waaye gis nga Adama ak mbaaxam nga dina yàq melow yàlla wi te réewut dafa leen a xàtte rek ci dëgg jël dàq ja ne ko yaa nekkul ci dëgg jël mag ja lay àqam mu jox ko ko ci teg lépp ci maandu ci diggante Qaabil ak Haabil waaye gis nga ko tamit xatte bu jub booba la yàlla abaloon yonentu yàlla noox ci la fi sax junne at yu manqué juróom fukk ñu koy indil procès yi mu koy xatte lépp tegu ci yoon tegu ci maandu tegu ci njub tegu ci ragal yàlla procès yooyu tamit xatte boobu la yàlla tegoon ci gàcce ko ci loxol yonentu yàlla Ibrahim dundam mbi lépp mu jeexal ko ci xàtte nit ñi ci jub xàtte nit ñi ci maandu xàtte nit ñi ci ragal yàlla waaye gis nga bu jub booba tamit tabaarakallaahu moom la yàlla gàcci teg ko ci loxol yonent yàlla daawuda yaa daawudu inna jaalnaaka xalifatan fil ardi fahkum bayna naasi bil haqq yow daawuda waay waay maa la def ngay xalifa bi yàlla tey ci kaw suuf nit ñi maandu nu na bëggee na àdduna dem yëpp lu jub la dem maandu la demee ba ci yonent yàlla Muusa wàcc ba ci yonent yàlla Isa wàcc ba ci sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dem jël lenge ya jox ko Aboubacar ñaari xattite gi weer maandu rek ak njub rek ak ragal yàlla rek da doon xattee nit ñi dem na jël na lenge ya jox ko sayduna sayyiduna omar mom mom kenn du mom ci mandu kenn du mom ci ragal yalla kenn du mom ci ak ba taxna na sayyiduna omar be ku jara bahiqallah ku jara fataliko ak njàngatam la ibnu abbas dafa dan wax ne bari len lu ngeen tuddu sayyiduna omar saa yu ngeen tuddé omar fataliko ko rek fatali ngeen mandu ku fàttaliku maandu fàttaliku yàlla ndax meloom la moo tax mu daan wax ne aksiru min zikri sayidina omar fa innakum in zakartum omara zakartumu l adla wa in zakartumu l adla zakartumu llaha azza wa jalla wallahi li daan ibnu ibnu abbas daan wax bëri leen lu gën a tudd omar ku tudd omar tudd maandu ku fàttaliku maandu tudd ko tudd yàlla kon dëgg-dëgg Omar baax mi ngi koy fàttalikoo Omar daal mi ngi koy fàttalikoo ci maandu rek mi ngi koy fàttalikoo ci joxi kóllëre rek mi ngi koy fàttalikoo ci ragal yàlla rek moo tax Omar daal ba neex nga tuddee ko ne mooy mafxaratul xukkaam wa taajan ala ruusihim Omar daal mooy jëmmi puukare xattikat yépp waaye tamit mu doon mbaxana moo xam ne mu taxaw mu mu tiim lépp ci seen bopp ya kooku moy Seydunaa Omar Seyduna Omar mi le huutu Seyduna Abubakar mi huutu yonent bi danaa la wax dara ci ak maandoom maandoom gi doy na ci li ci jëriir nettali ibnu abdallahi mu ne génnu góor dafa nekkoon ànd abu muusa al ashari di góor goo xam ne daal ku bëri wax la ku mënoon metital noni la ba ñu demee ci xaré ba ñi fa halal ju bari abu Musa jox ko cërëb mu baña nangu cër booba abu Musa jox ko ne ko dafa tuuti ci man lepp nga may jox abu Musa mer door ko ñaar fukki yar jaalal bi ko wat ko sa abul Musal al asari yu kilifa gu ak pouvoir bu rëy bi ko Seydina Omar joxoon ba tax mu bëgg mu dëgg ca pouvoir ba di dëgg ci ku doole ci kooka mer jël kawaram googa Abu Moussa wat kalaame ko ca Seydina Omar doon léegi daal tabaarakallaahu mooy certificat médical rek la bind rek yóbbu ko ci assise ba ah ba mu ko indilee Omar jëriir nee keroog ba leetar ba di ñëw maay ki gënoon a jege Omar ci nit ñi wa ana aqrabu naasi min Omar ibnu Xataab ba mu ñëwee mu gëñ ci yàlla Omar ne ko dëggal nga bu ko defee nag mu solo ko ne ko sa jaraaf bi nga tudde Abu Muusa ndomba tànk gu rëy ko takkal ci la dëgg dëggati ma duur na ma ñaar fukki yar yi mu ci mu wat sama bopp bi kawar li ko lépp Omar ibnu Xataab kenn du moom ca saasa la bind leetar yónnee ko Abul Muusa ne ko salaamun alayka amma baadu fa inna fulanan bi kaza wa kaza fa in kunta faalta fi mala in min annaasi fa asamtu alayka lamaa qaatu lahu fi mal lamaa qaata lahu fi malain min annaasi xataa yaqta xataa yaqtasa minka in kunta faalta dalika fi xalaa'in min annaasi faqud lahu fi xalaa'in min annaasi xataa yaqtasa minka toogal mu yónnee ko leetar ne ko ñaar fukki yar yi nga caw bi ñaara mën a am benn nga defee ko ci mbooloo maa nga defee ko ci wéetaay soo ko defee ci mbooloo danaa la indi ci digg mbooloo mi ñëpp tiim la mu caw la ñaar fukki yar war sa bopp bi soo ko defee ci wéetaay danañ la indi ci wéetaay goo xam ne yaa moom ak moom mu caw la ñaar fukki yar fayu jàllal bi ko war sa bopp bi ñëwal gaaw ah xoolu abul musa al ashari mu ñëw kilifa la bu doon jamono ji nga ne gouverneur la wala muy ministre te nekk Omar ibnu Xataab ko nome woon ba taxoon mu dëgg ca pouvoir booba di dëggate baadolo yi waaye keroog dafa ñëw toog réccee ko ci daraja su ko defee ba ñu teg ci place mbooloo mi yëpp tiim ko waa jooja nag war a fayu ñaar fukki yar ya wat ko waaja tiim ko téye yar ba rek ñëpp tiim ko xam nga ne loolu toroxal na ko de ci la mujj nag waja taxaw ne allahuma inni qad afawtu anhu yow yalla ma ngi lay gëñ ci ñaar fukki yar yi ma doon wat sama bokk bi jéggal naa ko dama ko bëggoon a wan rek rek ndom ndomba tànka waroo cee dëgg di toroxal ñi la ko takkal waroo cee dëgg di néewal doole ñi la may doole comme nag nangu na tey ba taxaw ak rékkeeku daraja gi mu xamoon nekkoon am ministre tey nag na taxaw ñëpp tiim ko ba mu xam ne tooñ na ma ba ma mën a xam sañ-sañu tey fayu caw ko ñaar fukki yar kanam nit ñi man loolu doy na ma sukk bis ni ki jéggal naa ko man ko kon baax na lii rek mooy jàmm ma ko jéggalu kon ma summi maanaam décret ministère bi ko faroon nga ko ñaar fukki yar wat boppam ma door ko koo delloo kenn du xamar ci kon nag lii ñu yàlla nattoo ak ndox muy kër guy yëpp yàlla nattu leen jox leen doole ñiy lu luñ wax mu wëy luñ dogal mu dog war nañoo jàngee maandu jàngee doxalin ci sayduna omar ci atteem bu bu mel nii la waajay parak-parak moom bokk moom benn parti tax mu nome ko ba mu nekkut ci dafa koo xeñ dëggam jë dafa ko xeñ loola rékki ko ba pare bañ war a doxal dëgg ci kawam nga ko ko delloo kenn doo lii mooy maandoog Omar waaye bu ma la doon toppal ak maandoom moom Seydina Omar fi dañuy fanaan a ibnu Malik ay nettali mu ne benn guddi Seydina Omar dafa doon dox mu dégg genn jigéen guy wonk ci benn néeg am genn góor gu toog ca buntu néeba Seydina Omar maskawu xàmmeewutoon ne mooy buuru jullit ñi moom góor ga mu nuyu ko ne ko yow góor gi yaay kan mu ne rajulun min ahlil baadiyati man góor laa gu bàyyi ko ca kaw ga loola mu mun a jiitu ila amiril muminina dama ñëw ci njiital jullit ñi ngir bëgg jot sama ngëneel ci moom fekk doo Seydunaa Omar lay waxal waaye xamutul ne kooka mooy Omar mu ne ko waaye waaye yow góor gi demal laaj demal doxi sa xaajo ndax dafa koo laaj ne ko jigéen googu ma dégg muy onk lan la mu ne ko intaliq rahimuka laa li xaajo waay mu ne ko alaya zalika maa huwa mu ne ko soxna si matu mooy sama xaajo mu ne ko lan la mu ne ko jigéen la goo xam ne dafay matu moo ko dal nii moo tax muy wonku ci la Omar départ rek dem këram ba tey waa ji xamul ne kii mooy amirul muminina fekk fa benn soxnaam bu ñu tuddee Ummu Kulsoom bintu Ali Ummu Kulsoom muy doomi Ali ibnu mu ne ko maa ngi lay proposé benn yool payoor goo xam ne yàllaa ko màng indi ko ci yow hal laki fii saaqahu llahu ilayki qaalat wa maa lan mooy payor googa mu ne ko qaala imraatun xaribatun tamxadu laysa indaha ahad mu ne ko kaay ma proposé la payor boo xam ne yàllaa ko mànk ko ba ci yow mu ne ko lan la mu ne ko jigéen guy mat bu tumuranke te genn jigéen gu nekk fa moom damaa bëgg nga jël seen mat matukaay yi ñu dem nga dimbale ko ba mu matu soxna sa tak bagasam ya tabarakallah lepp luy jigen bi soxla buy mat muy ay morso ak diw ak li ci ajoo ci ruy buñ koy wara togal ak ak diw ñor ak it ak dugub ndaw sa tak ko ak ñu dema dema dema dem ba ca ni kër ga dugga de ba ca neba mu ne ko duggal mu dugg dimbalé ko dimbalé ko ba soxna sa matu mu genn ko ya amiral muminina ma ngi lay wax ne bégalal sa waa jooju ne ko soxnaam si doom ju góor la am amiral moom ñu ne jóge soxna sa xooxee ko ci la door ci la jëkkër ji door a xam ne nekk kii mooy amiral moom ndax dafa ñëw ne ko yaa amiral muminina bashir saahibaka bi gulaamin falamma samia bi amiral muminina bi amiral muminina ka annahu haabahu fa jaala yantahi anhu ci la door a xam ne nekk góor gi di ma dimbaleeg coono bii mu daj yépp mooy xomar ñu xataat ha commencé kan mu mu ragal ko nag commencé diko soy sooy mu ne ko fo jëm man nit rek la toogal mu topato ko ba ndaw sa la ca war yépp def nañ ko mu bind génn këyit wax ko ne ko bu suba nga fekk ma ci place sangam ma faj sa aajo waa ji ñewal ko la ko waron ci dund ak la ca aajo doon soxla lepp sayyiduna Omar ko dugg dëgg Omar amandu motax bu la yalla jitalé ci kanam nit ñi bul doyloo toog ci sab sées gars yi di la indi rapport ya dana ca bëri rapport yoo xam lu leen arrangé rek lay doon lu leen ca namal lor ñu nëbbu ko waaye dafay war xaar ba guddi da wàcce ci terrain bi dox ci mbedd yi di dégg loolu la daan Seydina Omar daan def képp ko yàlla nattu ngay jiit soo ko soo ko royee rek population duñ la mën a wor duñ la mën a trahir loolu la Omar doon def ndax gis nga yiw wu rëy tey mu am yàlla bi ko may ko soxnaam lu ko ko may wàcc ci mbedd mi Omar ibnul ak maandoom heggoon na ci soxnaam Umu Kulsum dafa daan def su ko joxee dépense rek mu togg ca am ca lum ca dindi denc ko dërëm ya bëri mu jëndee ko nàkk ak naar doon léegi nga ne mooy mis wi bu ànd ak boisson bu nit ña wéetee rek dem rek mu tegal ko Omar Omar ne ko lii foo ko jëlee mu ne ko li def ci dund laa ko jëlee woon di ko dagale Omar ne ko ndax lii nga jox ma mën naa ko reggal mbooleem ñu ma jiite mu ne ko déedéet lii nag pour yow rek mu ne ko tos ñeel na njiit luy lekk yàpp population am di soom wala population am di gobar jaasi boo xañee denc reer boo reeree denc ci ndikk di gobar jaasi mag ña ko xam olof la yoo xam ne duwul olof yi francophone yi duwul olof yi maanaam olof yi francophone su ko defee nag mu ne ko kanaa xamoo sama dépense lu ci des lépp jullit ñee ko moom ma denc la ci lii de nakk ak naar gi dama ko mos doo ko mos moom jullit ñëpp nuñ ko mos samaay seen jiit waaye nga nekk sama soxna maag yow ñi bokk nekk fii tey ci palais bi di di teraangoo xéewal gu rëy ji population yi nekk ci suñ biti mënuñ koo am doo ko def mukk moo tax ñu ne ruwee an na umma kulsuum an na ummu kulsuum bintu fatima neexee nga ne an na umma kulsuuma bintu fatima بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته إذ ذكرت بعض الدراهم فسألها عمر عن سبب ذلك فقال لأشتري بها بعض الحلوى فيقول لها عمر يا أم كلثوم ما زاد عن قوتنا فالمسلمون أولى به إسك يا عمر سن جند bi ديس لوني des نيكو ne jullit ñee ko xeeyoo توق tax benn saahir من من مسبع أبيات يلي بك عمر نيا رافعا راية يا رافعا راية السورة وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها رؤي الجماعة لا تشقي البلاد به رغم الخلاف رغم الخلاف ورؤي الفرد يشقيها إن جاء في شدة قوم شاركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها جوع الخلافة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها كي واجه من واي من يومي يكتي درابو هديسو sa drapeau yi diisoo yaay ki ko doon garde ba du daanu yal na yàlla fay la yiw xelaatu mbooloo kenn ku nekk ci du ca texe xadi mukk am réew waaye nag xelaataat suma bopp maa leen jiite li ma xelaat laay def lu ma neex lay def mu ne réew mu këpp rek loolu moo ko këpp li muy am am xel li muy am am xelaat li muy jub jub doyloohutoon xalaatam dafa daan doyloo xalaatu nit ñi mu ne ko diisoo daal wax ak nit ñi ba yàlla digle woon ci wa saawirhum fil amri fa ida asamta fa tawakkal alaa ji mu waxoon yonent bi ak ji mu waxoon saxaaba yi ne wa amruhum suuraa baynahum dëgg Omar yaay ki ko jëfee bu doon drapeau yaay ki ko yëkkati waaye yaay ki ko garde ba drapeau ba daanuwul yow bu population bi xiifee ba mënoo leen a reggal nga ne man tey du ma xañ du ma reer du ma ndékki damaa bëgg a mos xiif dimbale ñu xiif ñi Omar daana toog jamonoy sedde li ngay yëre yu mën a protéger sedd bi mu summi ko di karkar yi lox soxna si ne ko doo sol yëre yi mu ne comme ñi sedd ñëpp tey di lox maa leen waroon a jox yëre bu ñu waroon a protéger sedd bi ci ñoom te awma ko danaa leen dimbalee man tamit di yëg la ñuy yëg kenn du Omar billaahi Omar a baax bu toogee tamit ñu ne ko gox sàngam dañoo xiif amul ñam wum leen mën a jox ba ñëpp regg mu xëy ne duma du duma reer duma ndicc ndax mbooleem ku xiif sama xilif la maara waroon na reggal xawma ma ko naa mos la ñuy mos dimbalee leen ko kenn du xomar moo tax mu ne in jaaxa fi shiddatin qawmun saaraktuhumu fil juu'i aw tanjaliya anhu xawaashiha mu ne xomar a ngi xiif taxadduna bi lépp moo ko xilif avant muy génn àdduna bi boo xaajee àdduna bi lépp ñeenti xaaj ñeenteeli xaaj yépp jullit ñëpp moom Muhammad nekk seen kilifa mu juuxul xalifati wa dunya bi qabdihi mansilatun fi suhdi subhaana muuliha kon kii mooy Seyduna Omar ci maandu kii mooy Seyduna Omar ci njub kii mooy Seyduna Omar ci ragal yàlla moo tax ak maandoom xemutoon sax ci jullit ñi rek waaye maandoom gi dafa mujjoon law ba xegg ci ñu dul jullit benn bis dafa jëm saam moom Seydunaa Omar gis génn góor goo xam ne bokkuñu moom diine ci biyu la dafa war a joxe galak jamono ja jot muy impa mun koo fay ñi taxawloo ko ca naaj wa Omar ibnu Xattaab ne góor gi taxaw ca naaj wa kan la ñu ne ko du julit dafa waroon a fay impôt te ba waroon a fay passé na Momar ne taxaw loo leen ko ci ker gi danaa déggu leen yonent bi ne yàlla dana mbugal képp kuy mbugal nit ñi inna allaha yuazibu alladina na annaasa fi dunia bu yowmal qiyaamee képp ku doon mbugal nit ñi ngir sa doole ngir sa doom ak ngir sa daraja ngir sa juddu bu ëllëgee yowmal qiyaam yàlla rékki a mbugal a li doon mbugal nit ñi waay waay taxawloo leen ko ci ker gi door koo fayeeku waaye bu ko ko taxawloo ci naaj bi di ko fayeeku kenn du xomar kon gis nga ko lii mooy maandoog Seydunaa Omar gi xam naa ne ci kartanal yàlla boo ma toppee suba ci waxtu wi ma sof ak yow maandoog Seydunaa Ousmane wax la maandoog Seydunaa Aliyu wax la mandoog ah, góor gu tedd bu ñuy tuddee suray kat yépp dañoo nangu ci ak mandom fàtte na tabarakallahu lu jégué juroom benn fukki hat té lépp mu hatté ko ci mandu loko boma topé su ba bëgg atté kat yépp déglu ko su ko défé timit ñi man ko roy wayé lolu nak ci kartanal suba ci waxtu wi lay doon إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muy السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدل del